Sünnet, sünnet, sünnet, sünnet, sünnet, sünnet, daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax ngeen am da nga am taw taw ko may xaas la ñu am ñoom ñun fekk nekk ci xas na yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér wér yoo ne taw bi ñëpp war nañ cee te ngeen dund ci fàggu waaye nag dañ ko bale xaas xaas ngeen am waxuma taw feex taw ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye ñun xaas ngeen am waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek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 buñ joxe seeni alal ak seeni bakkan añ ba leen di ci aljana lool rek lay firndeel. moo tax kon mu indi kon baatab busuru waaye busuru nekkul ca aaya ja waaye nag aaya dafa làmbug busuru kon day wane ne moom cëram ci boppam moom jot na ca mooy añ ba nga xamee ne moom la war a añ ci aljana kooku jot na ci ci aljana ci adduna gi teew muy aljanaam ju teew moo tax mu indi baatab busuru waaye fastabsiroo la alquran wax bi bayhikum allati baayaxtum na ngeen bég ci jaayante gi ngeen jaayante ak yàlla te loolu kat la muy firndeel mooy am ngeen texe gu màgg te mooy tabbi aljana mooy xam nga bu yàgg ba léegi xasida gi li muy tënkee xasida mooy inna allaha astara baatab inna allaha astara minal muminina anfusahum wa amwaalihum suñu borom dafa wax ne yàlla kat jënd na dégg nga ci jullit ñi ci seen bopp ak seeni alal ne am nañ aljana maanaam jullit buñ nangoo joxe seen bopp ngir yàlla nangoo joxe seen alal ngir yàlla mooy yàlla mi ngi leen di xaare aljana ñooñu mooy ñan mu ne yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waxdan alayhi xaqa mooy ñi nga xam ne dañuy xeex ci yoon yàlla benn ñi rey leen wala ñuy rey lum ci mën a am rek waaye jox nañ seen bakkan ak seen alal loolu dëxal la boo xam ne dëxal bu wér la yàlla dëxal na ko julit ñi ta nekkoon na ci téere boobu di tawraat ak linjiil waaye ñëw na ba tey ci téere bi di alquran moo tax bu tege fii tawraati wa linjiil wal quran yàlla ne wa man awfa bi ahdihi min allahi amul kenn ku gën a mat ku daaqa matal yàlla kóllëre kon na ngeen xam ne lii yàlla wax leen mooy kóllëre goo xam ne yàlla dana ko matal sëkk di maanaam digganteem ak yéen ñi joxe seeni bakkan ak seeni alal kon nag fastabsiroo bi bay'ikum na ngeen bég ci seen jaayante allati baayaxtum bihi jaayante gi ngeen jaayanteeg yàlla te mooy joxe seen alal ak seen bakkan na ngeen xam ne jaayante googu du doon neen de ndax wasaalik wal fawsul asim ngeen ci jëlee ak texe te mooy kon ab julit bu yaakaaree aljana dëgg-dëgg day fexe joxe alalam joxe bakkanam na ko jaral lu ne mu ngi noonu léegi nag baatab busuru bi sëriñ bi indi ci bokkut ci alquran waaye day wane ne suro gi yàlla wax ne bég leen moom kon jot na ci mbégte mooy jot na ci añam te demagul aljana mooy lam la wax ne nga xam sëriñ bi baatu alquran bu indi rek te yàlla am lum ci dële bu fekkee la muy dële le moom jot na ci adduna ba noppi bu fekkee lu loo xam ne yàlla da ci tëkku dégg nga di ci wax mbugalam mu tar moom suñu borom musal na ko ci àdduna ba noppi moom léppam yàlla ci na la ko lijjantee mu ne bismillahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xiwalaa kon ñëpp ci àdduna arrahimi buur bay ajiram ku ko soob ci alaxira wasala yàlla julli allah yàlla ala sayidna ci kaw sunu sange muhammadin turam mooy muhammad wa ali yàlla julli ci waa këram wa sahbi ak sahabaam yëpp wasalama tamu dolli koolu tasliman ak dolli nee maa ngi tàmbali xasida gi ci tur yàlla yàlla muy xéewalaa koon ñëpp ci àdduna tey aji yërëm ku ko soob ci alaxira yàlla moom maa ngi koy dagaan mu julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad yàlla yàlla julli ci waa ak saabaam te dolli ko wóolu waaye moom yàlla moom wawa xabba maa ngi koy ñaan ba dana may lii ñeel ma bilaa makkirin ci dul benn pexe wala xuruurin wala ak woru wala stidraajin wala ak njeyal maa ngi koy ñaan ba dana ma may busaram mbégteem fastabsiroo gi mu wax ci alquran maanaam mbégteem ca bopp mooy añam bi maa mu jot ci wàllam moom nga xam ne kon jullit bu joxe sa bakkan ak sa alal rek am nga ci fastabsiroo wàll nga xam ne kon bu ay bool kenn ku nekk am na ci ab bool jullit bu ci nekk am na bool bu la ci xaar muy añ bu duuf ca aljana ya nga xam ne soo fa duggee doo génn mukk moo tax yàlla maa ngi koy ñaan ba danoo may te may gi nag bu ma ci laqal ak pexeem ndax waxoon naa leen yàlla léegi mu may jàmm bi fekk moom mi ko may ci bopp sax da koy pexal am na ñoo xam ne bu leen yàlla fiiri rek jàpp leen <laughs> wala la sax moo tax ñoo xam ne ñu ngi leen topp waaye bu leen yàlla waxoon ñooy kan kenn dootu leen topp yàlla moo bëri sutura yàlla nag ma may ci lu benn pexe wala ak woro dégg nga da nga gis sëriñ boo xam ne ci àdduna bu génnee sol lu rafet nga ne xut bu samaan baa nga te sëñ Tuubaa wax na ca masaaliku nee ne wallahi golo moo ko ëpp cër fa yàlla golo moo ko tane fa yàlla te nag mu ngee mbooloo kon boo waxa ba lii bilaa makrin wala xuróodin yalla maa ngi koy ñaan mu may ma ci lu benn pexe ak woru waaye bu ci njayalam am sa na sanastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun jàngin ci alxuraan yàlla nee na danaa leen jay fu ngeen dut xam dégg nga kon mbir yëpp yàllaa ko moom boo boo boo bañ a sonn daal même lu la yàlla may sax delloo ko ci yàlla xam ne yàllaa ko moom parce que dala koo abal rek boo fa bay ko mu joxar ko keneen moo tax kon moo tax kon mu ne maa ngi koy ñaan mu may ma ko mu may ma bu saru mbégteem fastabsiroo mooy bég leen yéen jullit ñi yéen ñu joxe seen alal ak seen bakkan bég leen ci añ bi leen di xaar ci aljana ngeen jaayante gi ngeen jaayante ak seen borom ci nangoo génne seen alal ba mu jeex takk ci nangoo seen bakkan jox ko ba mu jeex takk ci yoonu yàlla fastabsiroo bi bay'ikum allazi baayaxtum bihi wa saariqul fasl azim kon mbégte ma ciy juddoo muy añu boppam sëriñ bi jot na ca mu jël baax ak bu sara gi bara ani seetal na ma man yàlla mi nga xamee ne kaana nekkal na lii ñeel ma bi niyati ci sama yéene bopp min kasabin ci lépp luy fen wa min laqan akuk neen wa firiya ak dóor nee na suñu borom subxanahu wa taala ci sama yéene bopp ci la ma nekkal ci waxtu ne nga xam ne lu ma yéene rek te defuma ko sax yàlla fekk ma ca loolu may nekkal la ci sa yéene am na jaam ñoo xam ne même waxuma la ñuy jëf sax waaye nañ yéene rek waaw lépp luñ yéene rek yàlla bindeel leen payooru ku ko def wala wala lu ko ëpp ndax seen yéene moo toll noonu ci yàlla. moo tax mu ne yàlla mi nga xam ne daf maa nekkal ci sama yéene bopp moo ma setal ci lépp luy fen man du ma fen seetal ma ci lépp luy neen ci wax neen wala wala jëf ko waaye duur muy li gën a yiis muy duur duural yàlla lu mel ni wax loo xam ne ne sa borom defal na la ko te lépp kàcc la amoo ci loola wóor yàlla na ci yàlla musal kon kasib ak laqan ak firia benn bu ci nekk ab julit war na koo moytu. kasib buñ ko waxee mooy fen woo xam ne waxoon naa leen mën na am cëslaay maanaam njëlbeen gi mën naa doon dëgg waaye dafa am loo ci yokk laqan nag mooy loo xam ne lu wax rek mbuusur la moom neen la moom firee na moom moo gën a bon ñoom ñëpp mooy gi gën a bon mooy fa mu boye ko baaxut fa mu jëm baaxut kooku mooy firee muy dóor yàlla na ci yàlla musal waaw na ci yàlla jaay sidi lu jóodi sallallahu alayhi wa sallam moo tax jàng ci alquran yàlla ne am yaquluuna tara tara tara mooy firee rek mooy dóor alallahi kasiba fa in yasa illahu la ala qalbika wa yamhu lahu albatila wa yuqal xaq bi kalimaati inu alim bisa si dóoru ma ndax da ngeen di waxal yàlla loo xamee ne iftira la muy duut loxol yi na ko sos lépp ngeen teg ko ci kàcc ci seen làmmañ yi rek te bu neexoon yàlla ba ngeen koy wax mu yeew seen xol ba du ngeen ko mën a wax evance bépp neen bu ci nekk saxal ci dëgg waaye yàlla kat ino alim bisasi dóor yi gën nga lëm ci rek xam na lu nekk seen bit xol ya ndax mooy sos ak fenal yàlla rek naan yàlla am na doom ak nangam loolu rek lañ fi nekkee bokkaalikat yàlla yi kon ñett yëpp yàlla nañ ci musal kasib laqan firé yëpp yàlla nañ ci musal ñun ñëpp sahida seedel na lii ñeel ma sama borom bi kaw nii sama nekk xabda di jaamam bum nangu ak jaamam waxil laxoo tey xaritam wa hibbaxoo tey soppem waxenduxoo seedal na ma nekk gi ma nekk fa moom ci waxtu ne nee ne sun borom ci boppam moo ma seedeel moom rek doy na seedeel moo ma seedeel na ma man sëñ Tuubaa ak jaamam laa bu gërëm xaritam laa soppeem laa defe naa loolu kenn dara gënut ko neex dara dàqut ko yàlla seedel na la ne yow sama jaam nga sama xarit nga sama soppi nga koy jaamoo ka gën ci ka ngay jaamoo mooy sa borom mooy sa sang koy xaritoo ki gën ci ki ngay xaritoo mooy sa borom koy soppanteeg ki gën ci ki ngay sopp ci topp digleem bàyyi ay teram mooy sa borom sëriñ bi ne seedel na man jaamam bum gërëm laa xaritam laa soppeem laa waaye waxtu wu ne yàlla ma seedeel ne ku doon ab xarit doon ab soppeeb yàlla xam ngeen nag waxtu wu ne da ngay jokkoog yàlla mooy doo sori yàlla waxinduhu waxtu wu ne da ngay nekk fa sa borom subxanahu wa taala. raafaxtu àndante nag jundallahi soldaar yi yàlla fii taqur bi ci sama biir tumuranke bi muy tukki bi. walam asalta mosuma dëñ mukk saa taqur bi di borom jegeñ jegeñ lu lillahi jëm ci yàlla. nee na bi ma nekkee ci biir géej gi ci tukki bi noon yi sama digganteeg nasaraan bi nee na maa ngi ànd ak soldaar yàlla yi malaayka bu ne ñu ngi ma wër dégg nga waaye itam malaayka yi lu ñu may wër-wër du tax ma bàyyee ko mu ngi <laughs> waxtu wu ne damay def rek li may gën a jegeel sama borom di gën a jokkoo moom sëriñ bi yàlla rek la wóolu waaw yàlla rek la wóolu yàlla lu muy yebal malaayka yi malaayka yi ñi di ko escorté wala un lu badar terewul léppam yàlla la koy joxaat ba tey wala am asal lillahi saa taqur bi waaw du ma dañ mukk di jegen jegeñ lu jëm ci yàlla faasa tuuf na xilaami samay xalima wa midaad yi ak samay daxa wal jasad ak yaram bi faw san tuufu goo xamee ne bii ci tuufu googee wala ci ci la dëddoo li xëyri jëm ci ku dul man man xasat ñi nga xam ne dañoo kañaan nee na bu dee samay xalima ak sama daa ak sama yaram yépp mooy réussir nañ bu doon xare not naa ba daan samay noon yépp te génnuma xasida yi xasida yi laa leen notal ñu ñëpp da leen muy diggante xalima gi ak daxa ji ak sama jëmu ji nga xam ne mooy bind loolu mooy bi ana lahumul jinaan yuqaatiluuna fi sabilillahi kon moom da caa bay wàllam fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna moom kenn rayut ko te ray na ay noonam kenn rayut ko ci yoonu yàlla ta mostu daw mostu onku te ray na ay noonam te lépp rayul leen ci ngàndaay lurut bi lurut xalima rek la yor filimam rek la yor ak daxam moo tax samay xalima ak sama daa ak sama yaram réussir nañ réussir goo xam ne mboolem ñi ma doon kañaane ci lañ dëddu daw jëm ci ku dul man ardaytu gërëm loo naa rabbi rabbi sama borom wa adaqaltu ta tabbal wa adaqaltu ta tabbal naa suróor ay mbégte dégg nga dégg fu aadi man ci kaw xol ña nga xam ne kafaaniya ñoo ma fegal alxaroor iblis nee gërëm naa sama borom de te fu ma toll damay tabbal mbégte ci xol yi ñi nga xam ne ñoo ma fegal iblis loolu sax bu wax wax dama jublu ahlu badarin xol yi ñi nga xam ne dégg nga ñoo ma fegal iblis ñoom ñooñe muy waa ahlu badar nee na tabbal naa mbég mu rëy ci seen biir xol yi ci waxtu ne moo tax ne ardaytu gërëm loo naa rabbi sama borom wa adaqaltu te tabbal naa suróor ay mbég ala fu aadiman ci kaw xol yi ñi nga xamee ne kafaanee ñoo ma fegal alxaroor iblis maa nga xam ne moom waraakoon la salla barinki na lii jox ma noora lisaanil arabi leerug làmmiñu arab asmaana iqdaami jamono samag liggéeyal annabiyu kañu soloo ko al arabi kay ko arab nee na ba may liggéeyal yonent bi ca ahlul kitaab ca nasaraan ya nee ci la yàlla rinki sëlëb leer gi nekk ci làmmiñu arab jox ma mbóot mi secret bi yonent bi nga xam mooy ku yàlla soloo ki waaye dafa bokkoon ci arab ya tam moo doon seeni njiit tàmmama matalal na lii ñel ma dégg dégg nga assakuuru ka nga xam ne mooy santaakoon bi maa nawetu lépp loo xam ne yéene woon naa ko ca moom waxawaytu te làq naa sax faw xoomaa xasattuhu lu kawe la nga ne yéene woon naa ko mooy jubloon naa ko mooy yéene woon naa ko rek loolu moom ci luxu la buñ ne aniyatu buñ ne ci luxatul arabiya mooy tekki maanaam xasdu mooy tekki xasdu maanaam nit ki lu mu ji lu loo xam ne da ko yéene ba noppi jublu ko wa kamilan kulbanan ho wa naqsuduhu mooy lu mu yéene wax na ko ca sindidi yàlla miy santaakoon bi lépp lu ma yéene woon matalal na ma ko kon alhamdulilah waaye làq naa sax lu kawe lu ma yéene woon nga xam ne kon lu mu yéene woon sax làq na lu ko kawe waaye yàlla moom ci jëmi boppam moom sëriñ bi lam yéene woon yëpp suñu borom matalal na ko. moo tax mu ne tama ma matalal na lii ñeen ma asakuru yàlla may santaakoon bi maa nawetu lépp lu ma yéene woon ca moom waxawaytu ba làq naa sax fooxu maa xasattuhu lu kawe la nga xam ne yéene woon na ko. baraka barkeelal na lii yàlla mu di aji fent ji fii lusoomi sama lusoom maala yal sami wa fii jinaasiya ak sama biit jinaas yi bisil xaysoomi ci dara jaay borom xaysoom yàlla mu dee ci fent ji mboolem lusoom maala yal sam yi mu doon def yépp da koo barkeel waaye xeetale gi ma doon xeetale li jëmee ci moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp daf ma koo barkeel ci darajaay jibril jibril mi nga xam ne moo yoroon fasu jigéen wu tudd xaysoom bisil xaysoom boobu ki ñu ci jur mooy iblis déggal mooy mooy jibril alayhi salaam moo doon borom xaysoom moom la daan war di ñëw ci xar yi di jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaysoom fasu jigéen la jibril moo ko moo ko daan war lusoo maareel sam mooy lu mel ni lu lusoo mi xaysoo mi nawaytu xawaytu arabi arabi suróor xaróor jasat xasat ni wéy di daanee noonu loolu la ñuy tuddee lusoo maalaajal sam nga xam ne rawiyee bu njëkk bi rek lañ ko laajoon waaye beneen bi béy bi ni muy daanoo kooku moo ko indi moo ko coob réew waaye laajuñ ko ko bu neexoon mu daanee ko leneen dégg nga waaye lu rafet la ci wéy te mu bëgg ko loolu moom sëñ Tuubaa moo tax baraka barkeeloon na lii ma albadion yàlla mu jaaji fent ji fii lusoom yi sama lusoom mala el sami wa fii jinaas yi ak sama jinaas yi jinaas mooy ñaari baat yoo xam ne xaddaduha sakaluha tartibuha mooy ñoo bokk nuñ leen bindee baat ya ak nañ leen maasee yëpp ak niñ leen di jàngee waaye dañuy wutee maxnaa loolu mooy jinaas nee na nag yàlla barkeel na lépp ci darajaay jibril ma nga xam ne mooy borom xaysoom sayida wa jundallah yi ak soldaaram yi moom yàlla bi ànd na nii ne man sëñ Tuubaa sababtu joñ naa kulallaahi lépp loo xam ne caaxaan la nee na yàlla ma seedeel malaayikaam yépp seedeel ma ne man sëñ Tuubaa lépp lu fi nekkoon doon caaxaan maa daane maa ko mabbu maa daane lépp loo ma ne neen loon doon fi ay tabax ay mbindeef tabaxoon fi yàlla ma seedeel malaayika yi seedeel ma ne ma lépp maako daane kon mu ngi noonu defe naa ne ko seedut kooku <laughs> daanaka du doon dara ndeysaan lu yàlla seede malaaka seere ku ko seedu def naa ne mu ngi noonu radiitu gërëm loo naa an rabbi wali sama borom wa rabbita sama borom radiya gërëm na ani ci man wa maha far na ma radiya sama tawat bil maahi ci daraja aji far bàkkaar ji dégg nga kon bu daane lépp luy caaxaan te yàlla seedal ko ko malaayka seedal ko ko kon dana gërëm yàlla yàlla gërëm ko moo tax mu ne gërëm naa suñu borom suñu borom moom it gërëm na ma waaye lépp luy tawat lu mel ni yéem jëf lu mel ni ndéggatal lu mel ni loolu yëpp suñu borom far na ko ci man ci darja aji far bàkkaar ji kon nettali gi mu koy nettali nekk loo damay def lu ñuy wax bu muy a wala sumxatu wala ndéggatal déedéet dafa am loo xam ne day wuteeg loolu cant bokkul ak ndamu dañoo niroo nag waaye bokkuñu ndeysaan dañoo niroo maanaam nit ki buy cant day mel ni day ndamu ta fekk ndamut mu ngi doon ndamu moom mi ngi juddoo rek ci ki nga xam ne defal na la bu ko waxee rek loolu mooy ndamu waaye yow mi ñu nag ama man ngaa nettali lañ la defal wa ama bi ni ma dara bi ko fa hadis waaye nag kala defal moom sañatu nettali ndax moom daa def ngir yàlla rek tax kon nag yow mi nga xam ne yow lañ jox moom dañ laa digal nga sant kon mu ne suñu borom faral na ma sama tawak ci daraja aji far bàkkaat ji di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa na ma sol aradin yàlla muy borom suuf yi juróom-ñaar yi baax ak asamaan yi juróom-ñaar yi da way diyeele bi ma loo xamee ne kafaaniya moo ma fegal àlla ayna kañu rëbb ko saa baax mbir moom muy borom daw akarama nii teral na ma man yàlla mi nga xam ne saana nii moom a protégé an firiyatin walis may dóor muy fen woo xamee ne ki ko fen amut benn cëslaay waxal laqad ak walis neen wakaanata nekkal na lii ñel ma bi niyati sama yéene moom yàlla yàlla mi nga xam ne moom moom asamaani juróom-ñaar moom suufi juróom-ñaar moo jëmale ci man loo xamee ni iblis ci boppam waxtu ne day daw di dem du ma jublu yàlla mi nga xam ne ba du fen du wax neen nee yàlla moom moo ma teral de nee teral na ma yàlla mi nga xam ne moo ma protégé ñoŋal ma ba du ma wax def lu ñuy wax firiya muy door wala lu ñuy wax neen muy waxi mbusuur waaye suñu borom moom moo ma nekkal ci li nga xam ne moo di sama yéene ci waxtu ne lépp lu ma yéene rek suñu borom nekkal ma ci lu fawx sama njorto kon nag xasida gi mi ngi ko tënkee fas tabsiroo baatab busuru fas tabsiroo waaye bi mu jeexee mu indi pas-pas bi mooy bi bañ xeeku ma la si baaxantu nga xam ne kon jaayante bi jaayante mooy tax nit ki am la mu war a am mooy tax fas tabsiroo gi nga mën see jël sa bool sa wàll dégg nga la nga ca war a naan nga naan ca la nga ca war a lekk ca aljana nga lekk ko ca kon moo tax mu indi pas-pas bi waaye pas-pas moom tënkiwut ko xasida gi dégg nga añ bi rek la tënkee xasida muy fas tabsiroo na ko suñu blaat mu baax mi daan ko firee kon bég leen bi bàyyi ko ci saw bu seen jaayante àll ci gi nga xamee ne jaayantum jaayante ngeen koog bii yàlla. fii ma daa cëlaway qabla yow mi xatti lu jiitu bis bii ma bindee xaasal xatt bii bind alaf yi mooy mbind mi nga xam ne nuqi la maa ngi ko jëlee maa ngi ko toxalee mi ne law yu bàyyi ko ca alawa ji al mahfuus gën guñ wëttu walaahu te mbir moom yàlla wakilun aji seedal ala ma nuqulu ci lii nga xam ne wax nan ko mu ne na kon pas-pas bi mooy tax nga mën a bokk ci fas tabsiro yi mooy fexe jaayante jaayante bu dëgër joxe sa alal boo bëgg am aljana boo bëgg dugg aljana da ngay joxe sa alal joxe sa bakkan moo tax mu muy indi baatab bi bañ xekkuma li si bàyyantu bii pas-pas bi de mooy jaayante ngeen kook yàlla te deltuwu leen gannaaw mukk ca la lu jiitu bis bi nga xam ne ci laa bind bind mi kon day wane ne moom jaayanteeg yàlla gi mos jaayanteeg yàlla gi mostu dañ di jaayanteeg yàlla ba keroog muy bind bind mi maanaam nekku ne dafa bind bind mii rek jaayanteeg yàlla déedéet bind mi moom ba mu koy bind dafa fekk yàlla nangul na ko baata fas tabsiroo ba may ko mbégte ma léegi nag moo tax mu bind xasidi di ko sant ci ama bi nii ma tara bi ko fa hadis waaye lu jiitu muy bind bind mi moom fekkoon na moom suñu borom defal ko maanaam mbootum aaya ji nam ko defalee woon saxaaba yi antoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga moo tax ma ne cëla lu jiitu may bind maanaam xasidi gi nga xam ne maa ngi ko jëlee ca lawhul mahfuus laa jaayantoon ak yàlla ba yàlla may ma mbégteem wax ci muy busuru fastabsiru dégg nga xasidi gi nee na maa ngi ko jëlee ca lawhul mahfuus bind ko laxul lawhul mahfuus mooy alawa ji nga xam ne lépp lépp lépp fa lañ ko bind mboolem téere yi yàlla wàcc yëpp foofu lañ ko bind lépp lépp ma nga ca ba ca dogali yàlla yëpp foofu la ko bind maanaam bu doon alawa ji nga xam ne taalibe bi moom lay bindee di ko seetloo ji maanaam mooy misaal mooy lawhul mahfuus kooku lépp fa lañ ko bind waaw ah, innahu la quraanun majiidun fii lawhin mahfuus nee na nag xasida gi jëlee gi ma ko jëlee lawhul mahfuus dégg nga nee loolu yàlla seede na ko bu ngeen weddee nii itam lawul moom fas laa ko jëlee du tee yàlla moom seeri na ko bu ngeen weddee nii itam jaayante na ak suñu borom ba may ma mbégum fas tabsiroo suñu borom ba tey seeri na ko. mu ne subhaana rabbika tur dama sell ak buur bi rabbina sita moom muy borom tedd nga ama yasifoona walis lépp loo xam ne danañ ko melal ci ay doom ak i caaju. wasalaamun jàmm alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ko yàlla mosu yónni wala am du melu sax dàkk borom bi nee na maa ngi daani xasida gi di tudd màggaayu sama borom ak sellaayam di ko sori lépp lu yellu ci moom moom muy borom tedd ga lépp luñ koy melal ci ay doom rek maa ngi ko koy danoosel ndax mustahil la ci moom jàmm yàlla nekk ca mboolem ku yàlla mosu yónni melu sax dàkk tarafet aji sax la ñeel yàlla moom muy borom bi defi